asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 15 juillet 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la xëy tey dooreeti ko mel ni ki yëglikaay bi nag moom tey bu mu xëyee la mu ñëw indi daal daa mel ni bu ko amateur yi gisee wala ñu bëgg lamb boobu affiche dana leen neex muy diggante la dëgër numéro ak tafaatin yi nga xam ne bëri woon nañ fi ci atum ka ko tëggoon moo di Gaston fan yii nag ñoom ñaar ku ci ne yaa ngay sànni sa morom ay pik ca ginnaaw daal di taxaw mel ni ki nag Gaston Mbengue ma nga xam ne moom mooy la Don King de comme bi mu dellu see nag day tëggi combat moo ko indi tey affiche yu rëy rëy moo ko tax a jóg Gaston ne leen nag léegi waxante bi jaru ko bu ngeen raisonnable yéen ñaar ma jox leen avance ngeen bëre fi mu nekk nii daal loolooy wax ji ngir wax ja jeex Gaston daal nee leen jiwoo jaawoo jëratul ay wax raisonnable leen ma jox leen xaalis ngeen ñëw sëgg bëre mel ni ki tey loolu moo nekk ci xët u jëkku bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb mu mel ni nag ki nga xam ne nii moom moo di Garga Mbossé tamit daa mel ni ay adversaire am ñu nga ca xëy di ca wax moo xam ka nga xam ne nii moo xam Sa Thiès la wala ki nga xam ne nii moo di Yékini Senior loolu tamit yëglikaay bi ñëw na ci mel ni ki garga moom ca diggante booba fa ne leneen loo xam ne nii gis nañu ko ci yëglikaay bi di sunu làmb muy ki nga xam ne nii moo di guy gi ak rëg-rëg waanam daal li nga xam ne nii moo waral blocage bi ba fi mu nekk nii combat ba defagu ko yëglikaay bi di sunu làmb tamit ñëw na ci lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom ñëw nañ ci moom muy parisien bu faas wala moo ñëw tey séq ak waxtaan Abdoulaye Dembélé parisien nag moom ñamu xëy sampal ndënd ñenn la gambien la wax wala baabooy bu gambi ne na ñii daal ku ci ñimee lekkal sama avance nga ñëw sëgg nu laale dal di bëre keneen koo xam ne nii moom daa mel ni laale woon na fi ba nga xam ne daal donte dafa ñàkkoon waaye keneen daal la mu def moom maanaam xare dëgg dëgg dëgg wane jom wane ngar mi wane njàmbaar muy xale ba nga xam ne moo nekk Grand Yoff di Fourrière mu mel ni ki nag moom fi mu nekk daal ak jógaatam les di wër wala fa muy jaar ba jóg ndax nag la ko waral yëglikaay bi nee na daal maanaam ci tollu xare la daanu te it bam fay daanu moom wane wu fa lool loo xam ne nii mbirum ñàkk la maanaam fulla la wane ba daanu diggante mag bébé jéen la keneen koo xam ne nii nam na ci yëglikaay bi ngar daaju fa Sall di entraîneur ba nga xam ne moo nekk écrit wàllu moom nag mu nga xëy tey wax ci problème xam ne moo di Lac de Guiers numéro 2 nee na ne daal ñoom mënuñoo am ki nga xam ne moo di Eumeu Sène tamit dañuy jubali ca Tapha Tine dong moom mu ngi koy dëggal nee na daal fa ñuy jubali mooy mooy tafaatin bëri woon nañu ne nañu daan ko mu ne kon daal la fay des mooy tey ñu sëggaat bëre Lac de Guiers numéro 2 daa jàpp ne moom fi mu nekk nii moom tiitaru roi des arènes la war a jëli te itam jàpp na ne ku jaar ci yoonam dana la falaxe demu yoonam jàpp na ne itam mbërëm moom mbër la moo xam ne sérieux na ci entraînement tey itam yaru moom boo koy wër ron ne na boo yegsee ci Lac de Guiers numéro 2 da ngay dal di taxaw loolu sunu làmb xëy tey ñëw andil ñu ko bu nu fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di record record tamit am na loo xam ne xëy na andil ko mel ni que tamit ci diggante guy gi ak rëg-rëg mu mel ni ki démb moom waxtaan wa taroon na trop trop journée bu décisif daal nekkoon nañ ca keneen koo xam ne nii wala écrit boo xam ne yëglikaay ba da ñëw muy écrit bàcc seeras deux victoires trois défaites quarante pour cent record a xëy ñëw andil ñu ko ci xalima abu nduur mbër moo xam ne moom fa la nekk muy booy fay fa nga xam ne mooy ca bàcc seeras mel ni ki moom utal ko adversaire fi nekk nii lu jafee-jafe la yëglikaay xëy tëddoo tamit wax nañ ko booy fay mu bañ te yëglikaay bi daal ñëw na ci moom tey te xam ne ne booy fay daal pour pourtant palmarès ba day tax na mu riis maanaam daal nekkul ki nga xam ne nii palmarès am baaxul palmarès bu baax a baax la am waaye mbër yi daal nangu ñu bëre ak moom ci làmbi dóor ji yëglikaay bi record xëy ñëw wax nu ko mel ni ki moom record tamit la mu waxoon dem ca Bombardier ci diggante ak Eumeu Sène ne combat ba daal boo bëggee dëgg-dëgg taxawagul mel ni ki ba tey xëyaat na ñëw ca ak waa taay si nga ca la ñu waxoon wala boog waa taay nga it daal am na fa ñu wax ne ñoom combat fi mu nekk nii daa mel ay journaux daal lañ ca yem di dégg waaye taxaw moom gisaguñ ko ak ay bët buñ fa jógee dañuy dem Leewtoo point mel ni ki foofa nag moom combat booba bu ñuy wax naan taxaw na am taxawul ci diggante Bombardier ak Eumeu Sène mel ni ki nag moom Bombardier moo waxal boppam ca Leewtoo point ne na digganteem ak nga xam ne moo di Eumeu Sène daal bu bëggee dëgg dëgg Bombardier ne moom ci boppam combat ba taxaw na à cent pour cent ndax nag moom ne mooy waxal boppam ne bii combat daal ku ne taxawul xanaa yow la waaye man Bombardier daal ne na sama diggante ak Eumeu moo gi won ko ginnaaw génnoon écrit ba mu ne muy faas dem écrit yoof bala yàgg ñu gis ko bëreetul ba tey mu mujj a jàmbar wrestling academy muy Balla Diouf Balla mooma nag ci Leewtoo point net daal mu ngay xam le ne daal li am ba des daal day dellu siwaat ci làmb ji dal di bëre Balla Diouf daal lii la wax te ne na lii moom moom la fas yéenee def nee na daal waxtaan naag ñi ko wër ak ñi koy encadré ba jàpp na ne fi mu nekk ni yëg na ne war naa mën a bërewaat ndax daa amu ni gàllankoor te bëgg naa bërewaat ci ñeenteet ko dese ci carrière am ba tey bu nga xam ne moo di El Hadj Thioune moom di ma naan seeru tafaatin moom tamit daal tëkku yom fa doon tëkku ki nga xam ne moo di Lac de mu nga ca continuer nee na bés bu nu bëree daal nee na attaqué ko koñe ko daan ko la ñuy def Modou tamit bàyyiwu ko ndax nee na Modou dañoo war a bëri te itam bokk na ci seen i moom Thioune moom moo wax lu mel ni ki noonu bu nu continuer ba tey ca Leewtoo TV Lamine Samba itam xëy na fa daal di wax ci boppam waaye yemu ca de ñëw na ci diggante Reug Reug ak guy gi waaye ka nga xam moo di lig Nicolas ma ca kaso ba ndax Lamine jàpp na ne réew mi kuñ fi jàpp seetu ni ab soccet def ca la nga war a def ba mu génn nee na lu tax lig ni ko lay na ci kaso bi wàlla ma ji di seetaan nee na nanu ñaan président bu dajee cotiser jaree cotiser ñu cotiser ngir lig génn ci kaso bi ndax nag jàpp na ne foofu mu ne du palaasam te itam daa bokk ci nun loolu Lamine Samba moo xëy wax ko man daal yàgg maar la may ñaan te di ko wax mooy ki nga xam ne nii moo di lig Nikolaay ak képp ku ne ci kaso bi te ko yàlla na nga génn ndax lig nag moom ak génnam ama na làmb njariñ amal réew mi njariñ loo ci mën a dégg daal nit ku baax la te itam nag làmb ji ah yàgg mar lig Nikolaay bay na ci waaram waaye Gaston Mbengue daal nee na Tapha Tine yàgg Lac de bu ngeen raisonnable ngeen ñëw ma jox leen avance ngeen bëre kon Lac coow li daa war a jeex Tafa coow li na jeex wax leen ak Gaston encaisse avance yi ar arbitre soufflé ngeen bëre combat avance daa war a neex. moo ko waa Leewtoo TV di dina gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon si revue si jàngatu arène bi maa ngi lay nuyu di la ziar naan la nag tey damaa xees ba tey rek mbëkk sama buntu mi nga xaw a neewi nii. non déedéet waay douche moom amul taalibe di maa ngi lay fay di la ñaanal jàmm ko saako coow wax ne yow moom waroo mbëgg fenn parce que borom baax ah. waaw gars yi nee nañ moom waa internet yi ñoo ko wax. nee daal yow moom borom baax nga parce que da ngay reetaan jàppal baay ma ne leen daal leen rek ay problème am baax na trop mais waaw xaw na batante tuuti na. dafa xaw dagar bi dafa xaw a bëri waaw ngaam bi nag xaw naa dal <laughs> waaw Fall laa ah, sant nag jigéen Fall fa ko fekk de dafay <laughs> dëgër ngaam bi daal bu ko wàcce woon tuuti day baax acca <laughs> Babacar nag ñëw na si jàngatu euh, arène bi nag nu commencé ko ak sunu laam sunu laam nag dafa xëy dala ki nga xam ni mooy Gaston Mbengue la moom daal nee na pare na pour tëgg bi nga xam ni moo doxoon si diggante Tapha Tine ak Lac de Guiers en 2006 2006 2007 moom mi sax moo ko tëggoon neen daal ñaari combat boobu dina am incha allah. waaw parce que ñoom ñaar fi mu nekk nii la ma la la rek defe naa ne un plus un égal deux mooy Tapha Tine Lac de ma jóg ci di ko wax. te muy lu leer naañ parce que 2006 2007 la Gaston defoon kalaaf ñu bokkoon poul ñoom ñaar la daguerre daan tafaatin boobu ba tey ku nekk ne sa yoon di bëri di ñëw di bëri di ñëw ba tey defe naa ne ku ci ne am foo taxawee ñu am lu ñu war a def tafaa jóge ci ndam diggante mag Yékini Junior ndam lu rëy ki nga xam ne nii moom moo di lak jóge ci ndam digganteem ak Boy Niang daaw defe naa kon tey fi mu nekk nii ñoom ñaar seen combat moom manta warata mën a bañ a am li des mooy ñu raisonnable comme ni ko Gaston waxee raisonnable bi nag mooy lamb ji ku ne xam ne ni mu demee bu ñu leen fayee kaso yoo xam ne jàpp nañ ne loolu convaincre na leen ñu jël ko bëre moo gën toog bi di xaar def ay ne balance loolu moom duñ ko digal benn mbër ku ci gis kase bu nga xam ne nii jàpp nga ne tane na nga jël ko di compétir moo ëpp solo ko quoi. Mhm. Babacar Dieng nag ñu des tamit si combat boobu rek ki nga xam ne mooy coach écurie Waar mi Arona Sall nekk mag si euh, Abdou Diouf mbër moom daal li mu wax li mu gis nee na comme que nag amuñu ëmb seen ñoom daal seen xel yëpp mooy nu bëre ak ki nga xam ne mooy Tapha waaw loolu moom mooy mooy lan parce que ëmb seen moom ku na xam ne ne actuellement que li ñuy dégg nii yaakaar naa ne am ko ak lak fi mu nekk nii mënatul nekk wala boog du gaaw kon defe naa nekk fa di xaar nag balaay caag te nga gis adversaire boo xam ne sa potentiel adversaire la nga jël ko defe naa bëre loolu Arouna Sall wax mooy ëpp solo mooy lan mooy seen diggante ak Tafatine parce que lu ma la wax la rek ñoom ñaar wax dëgg yàlla ku leen bool da nga am làmb ji ndax li tax mooy ay mbër yu am fulla lañ am jom te dañuy entraîné te itam du duñu dellu gannaaw. muy Lac muy Tapha waa waaw journal bi tamit ñëwaat na si li nga xam ne moom moo tax combat guy gi ak kii nga xam ne mooy Reug Reug ba léegi su fekkee ni GFM moom téye na ki nga xam ne mooy Reug Reug guy moom moo des journal aussi mu ngi xanal xamal ne guy gi la tax combat ba léegi taxawagul guy gi dañ ko waa GFM lañ ko fay cachet bi nga xam ne moom la amoon bi muy bëree ak Siteu moo tax guy gi ne moom nag mënu am victoire si kaw Siteu par ni koy fayaat même boobu te nag xam na ni instant bi combat boobu moom la amateur yëpp soxla moo tax daal guy gi fu mu taxaw daal ngan ko daal si wàllum cachet foofu daal la taxaw ba léegi da laxas jaan waaw cene ba maa ngi koy nuyu guy gi borom États-Unis waaw di wax ne loolu GFM tamit seen yéene rafet na comme li ma waxoon démb laay waxaat rek ñëw nañu te bi ñëwee nit ñi affiche la bi nga xam ne amateurs soxla nañ ko comme nunu ko guy gi waxee kani guy gi ak rëg-rëg ah ci des nag mooy ñoom am nañ rëg-rëg ba pare guy gi mooy problème bi actuellement ah mbër nag bu fekkente ne dafa bëree daan parce ko fayoon dara mu mën a bëri defe naa loolu tamit war nañ ci mën a waxtaan ba déggoo ci muy nas mi koy rak staffu guy gi ak tamit waa GFM ñoom Maaou Cissé ak ñiy dox ci muy combat boo xam jëkk a convaincre bi nga xam ne leer na leen combat bi bu dee cent pour cent yi ci moom la aju bien dégg mm. parce que guy gi am na lu mu jiitoo rek rek ci làmb am na vekki bu mu kopp ci lit avec frappe yaa dégg boo lool nag boo ko boolee kon defe naa ne jëkk wax guy gi ba convaincre dina am solo trop trop trop parce que rëg-rëg moom li ma lax fi mu nekk nii rek moom ràññetlewul jànj ak joor mm. moom xam naa ne moom ku lekk avance am lay wër. Mhm. moom bëre la bëgg. rërëg moom nag euh, moo même si journal bi sax mi ngi wax ne moom daal euh, xaas bu ko waa GFM jox euh, pour mu téye ko adversaire moom dina woo promoteur yi daal ko si bëgg daal mu tëggal ko combat. gis nga kon li ma la doon wax mu ngi noonu <laughs> waaw xam nga kon li ma la doon wax a ngi noonu parce que rëg-rëg li ma la wax la rek rëg-rëg moom actuellement moom dafa bëgg bëre mm. dafa bëgg a bëre te jàpp na ne ñi mu war a bëreel mooy ay ay ay ay ay Yékini Senior la war a bëreel mm. ay Gouye Gui ay Sa ay eh, ay Garga Mbossé yaa ngi dégg moom la foofu la teg bëtam te yaakaar na itam nit ku ne am nga droit kat xool li nga jàpp ni lii boo ko demee def ca dara wala boo fa yeggee dana la arranger wala nga bën la avancer nga nga nga jëli ko waaye xam naa daal kon waa GFM yàlla ñu mën a teel a jubóo guy ba combat bi mën a. amiin Babacar li ñuy wax na Garga Mbossé daal ay adversaire am daal du génn si ñaar yi diggante Sa Thiès ak ki nga xam ne mooy Yékini Junior. waaw loolu day foofu moom wax fa la war a mën a bëri parce que bu dee Sa la moog Garga li ma lax la rek ba tey 1 plus 1 égale 2 bu dee Yékini Junior moo Garga Mbossé wala Yékini Junior ak Sa Thiès 1 plus 1 égale parce que Yékini Junior moom tamit dama la mbër bu mag la parce que ku bëreeg Lac de Guiers bëreeg Tapha ñeneen ak ñeneen daan Modou Anta defe naa ne ci làmb ji da nga bokk moom tamit yaakaar naa ne war nañoo wax ci digganteem ak Sa Thiès ñu wax ci digganteem ak Garga Mbossé mm-hmm. waaw nag suñu laam lañ xam ne moom bu mu euh, contacter ay ay proches yi nga xam ne noonu nekk foofu Mbour nu ne combat bi ak euh, ñooma yëg nu combat bomba ji tey nag dafa xëy dalal ñi nga xam ne nooy waa Taïchinga bu mu ay ay sources am ko daal combat boobu dañ koy dégg rek mais virtuel virtuellement la combat bi taxaw mais officiellement yëg nu combat Eumeu Sène ak ki nga xam ne mooy bomba ji. waaw kon la waa Mbour waxoon dem lu mel ni la waa nga wax tey mel ni kon daal ah loolu mooy li nga xam ne moo ci am ñun nag li ñuy wax daal mooy. yàlla na yàlla def saal comme officiel agul yàlla na yàlla def mu officiel ba ñu mën ko bëre parce que l'ambulance la nga xam ne bëgg nañ ko muy ci côté Mbour muy ci côté Tay Singa parce que ba ma jëg ama seen moom defe naa ne seen bëre ba ba tey amateur yi doyaluñ ca mhm. parce que combat ba daa teel a jeex waaw ni ngi wax nag euh, toujours sur record ne ne ginnaaw euh, ngi nee nañ ban adversaire la booy fay fas yéeneel bëreel rek waaw moom day wax dëgg yàlla dee dañoo dox mook bébé jéet mook Ibou Senghor yëpp bañ ah loolu nag mbër mu ne am nga droit ne kii laay bëreel du ma bëree kii la tax nga ne du ma kii yow yaa ko xam waaye li ci am solo daal mooy que ni war na mën a am adversaire bëri parce que xale la am na talent moom booy fay te ci làmb ji da cee bokk te ku ne gis na li muy wane ci wàllum prouesse technique ci biir lit simple bi waaw Babacar suñu jógee nag record yi dem fi nga xam ne mooy mooy Leewtoo point net Leewtoo point net nag foofu ni nga xamal nag nañ fa dalal ki nga xam ne mooy Bombardier génnal nag depuis France nag di leeral combat am ak Eumeu Sène moom daal nee na yibbisi daal moo ko tere combat boobu taxaw pour ñu jot avance ak moom ak Gaston Babacar waaw maanaam daal kon suñ ko déggee moom ci Leewtoo point net moom la mu waxee moom mooy moom Bombardier moom mii bëri jox na kàddoom Gaston Mbengue mm. nangu naa bëri ak Eumeu Sène xëy na ñibbisi moo tere kon mbir ma féete boor wax loolu nag mooy li ñuy wax rek combat ba daal dañuy ñaan yàlla mu taxaw ñaan Bombardier it mu ñibbisi ak jàmm parce que li ko téye woon foofu ku ne xam na ne moo doon mbas mi ñu tëjoon aéroport yi ba tax mënutu na ñëw Sénégal ak sénégalais yu bëri defe naa tey ji la ñu ubbiwaat aéroport yi jaww ji ñu mën avion yi mën a naaw kon defe naa ne yàlla na ñibbisi ak jàmm ba làmb ji mën a nekk parce que moom mi nga xam ne ne mooy acteur principal ngémbam ñëwaat na daal fas yéene takkaat ngémbal Babacar papaay Mouhamed Séri Ndey Kumba Fall man boobu laa ciy boole Balla Diouf Cœur de Lion ma koy bëggee waaw le retour de Balla du mën a ñàkk parce que tamit li ma lay wax rek bi muy bàyyi biñ biñ ko toogee gisatuñ ko ci làmb jaaxal nit ñi yaa ngi dégg ñi naan dafa bàyyi ñi naan bàyyiwul moom nag dem moo waxal boppam que ni bàyyiwul day dellu si waat dafa newoon ci ay jafe-jafe effectivement àddina noonu la nday kumba des fois li tubaab bi wax il faut reculer pour mieux sauter dafay am parce que li tax mooy boo demee ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jógewul yaa ngi dégg te itam làmb dafa am ay réalité am na muy doxe boo balla bu nekk bi mu nekk na écurie di wane lu doy doy waar dem ba benn moment ci dernier combat bi mu ñàkk ay combat yu teglantoo dem ba tamit foofu xëy na malentendu am fa mm. mu taxu dem yoof foofu tamit xëy na assise bi mu war a am amagu ko yooyu yëpp boo ko dajalee ay mbir la ay teq-teq la yoo xam ne ci carrière day xaw a jafe pour nga dajale ko di exister kon day laaj nga toogaat xool fi nga war a aw ba gis ko doog a mën a dem tey mu nga jàmbar wala si ling ñoom père ba ak ñeneen ak ñeneen wër ko encadré ko kon defe naa bu fekkente ne ñoo ko jox avalu mu bëri moom mi acteur bi tamit mu war naa mbëre war na a bëri am na droit ñëwaat bëri ñu koy wax rek bon sens di ko yëpp parce que làmb da cee moom Balla Diouf ay atam jeexagul pour mu war a bàyyi bëri Babacar suñu jógee nag si Leewtoo point net nañ fi nga xam ne moom mooy Leewtoo TV foofu na ni fa dalal ki nga xam ne moom la Tapha war a bëre nen nag ginnaaw nag suñu amulee Lac de Guiers 2 seen plan A daal mooy bëre ki nga xam ne mooy roi des arènes muy Modou waaw loolu day la wax moom El Hadj Thioune seen combat Lac de Guiers numéro 2 est-ce que du moo gën a doon Euh, fi mu nekk nii li tax oh, dafa joxe kàddoom mm. te Modou Lo itam nekk na mbër boo xam ne ci li ñu xam si moom ku respecté ay waxam la yaa ngi dégg te defe naa digganteem ak Luc Nicolaï egg nañ foo xam ne nii waawi Modou Lo ci Luc Nicolaï xaalis mën na koo bañ a yàq leneen mën na ko bañ a yàq moo tax ma xam ne kon su ma la may wax daal moo que ne am nañ droit nag bëgg ko waaye la ñuy ñaan ñun mooy lu ma duggoon ca combat ba yàlla na ko yàlla génne fa mu Ama Balde te Lac de Guiers numéro 2 ak Tafatine bëre wala Tafatine ak Boy Niang wala keneen ak keneen. Mm-hmm. waaw Leewtoo TV aussi mi ngi dalal ki nga xam ne mooy mooy borom jongante di Lamine Samba foofu tamit Lamine Samba mi expliqué diggante ak ki nga xam ne mooy Luc Nicolas ñoon tamit si Luc Nicolas mi nga xam ne moom la euh, caabi féete ginnaaw Babacar. waaw moom Lamine daal la mu wax tas que la mu wax rek mooy génn golo a gudd na ndey ku ma mais loo ci laal borom yëg ko dafa jàpp ne nag waa làmb ji ah, dañu war a jóg. parce que il est l'heure soutenir Luc Nicolaï bu dee xaalis la ñu cotiser lu mu mën a bu dee ñaan ñoo ñaan ngir mu génn ci kaso bi parce que jàpp ne daf ci bokk ci mbir ñi te itam loolu dañ ci ànd ak moom parce que Luc Nicolaï nit la bi nga xam ne ni tey ci làmb defe naa ne def na ci loo xam ne kenn mëntu koo dindi marqué na ci naa ne tey ñu ngi koy ñaanal yàlla foofu mu nekk yàlla na euh, vraiment lu ama am solo la parce que Luc wax dëgg yàlla quelqu'un la bi nga xam ne nii daal nday kumba moom dafa bokk ci mbir yi àddina nag olof ne na moo ko weeru koor a fekk doog jotul jubu weesagul parce que tout possible pour doomu aadama lépp a mën a am dañuy ñaan yàlla rek saa yu ñu yàlla na ko yàlla oyofal seddal ko mais ngi ñaan daal mu dellu saat ci ñun di nuyuwaat encore une fois Lamine Samba mm-hmm. nag euh, si ñaan yooyu la leen tàggoo di leen jox daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mais soo sama doom Mohamed Diouf di astande chéri euh, Khadija Diallo depuis parcelle ak euh, fi nga xam Guéraw depuis Italie di nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Guèye euh, papa yi Siteu Baye Fall Diamaguène depuis États-Unis di ko nuyu di ko jox wàcc waayam lu bëri di ki nga xam ne mooy euh, Sophie Nour depuis depuis France nuyu aussi samay doom Tabara ak ki nga xam ni mooy bébé Fa Babacar di aussi euh, Jibi Bamba Babacar léegi <laughs> mbër la yàgg maar les tam la yor de <laughs> sa tànk laay topp ah. <laughs> <laughs> man nag tey moom xam naa ñu may njëkk nuyu parce que ci suba nañ ma boobu dee ñu ne parce dañ lay seetaan euh, kenn ki mën naa ne suma rakk la ñu bokk dëkk Awa Mbaye Sène madame Faye maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit ki nga xam ne moom lay nekkal moom muy sama doom nijaay di Yaama Diouf maa ngi nuyu moom tamit xam nga di leen nuyu di nuyu waa Mbombo yëpp di nuyu li wër dëkk yooyu Mbombo yëpp Mbomboy Refane Kër Waali xam nga Mbombo yëpp nekk fa maa ngi leen di parce que dëkk bu sa yaay sama yaay dëkk kon muy nuyu waa Mbombo di nuyu sama ay nijaay sama nijaay Njàmme Ngom ak aada ak famille bi yëpp maa ngi leen di bëggee daal di nuyu tamit waa commune Ndondol yëpp du mën a ñàkk di nuyu sama waa dëkk waa ak yaay di ci jël sama wayjur bu góor di ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi guddal ay fanam wéral ay cëram ak famille bi yëpp di nuyu di ñaanal sama wayjur bu jigéen tamit yàlla na ko yàlla jéggal te xare ko aljana di nuyu képp nga xam ne daal yaa ngi ñuy siifar foo mën a nekk si àddina bi mais tam du ñu fàtte ku mel ni rek sama jigéen a ñàkk muy Khady moo di des na de ñeent lañu ak Awa Diop boroom Touba waaw moo dëkk Touba boobu waaye Touba Bamba ko moom Awa Diop taalibe Bamba sax laay wax Abdoulaye Mbaye ah Abdoulaye Mbaye kenn day moom <laughs> doomu Gambie sénégalais bi taalibe seexal l'islam mam Baye Niass di bëggee axlu ñaseen bi yëpp tamit di ñaan sénégalais yàlla na fi yàlla def jàmm kon bu allah